asalaamaaleykum man la Aida from uh, VOD Voice Out Digital um, tey ñu ngi fii nii um, Sukuta Sukuta traffic light highway bi pour ñëw waxtaan nit ñi fi dëkk pour jéem a pour jéem a wax ak ñoom about lu happenoon démba um, démba fii ni si Sukuta traffic light bi fii am na ñetti police officers yu gaay fetel ñoo xam ne ñetti police officers yi fetel ñaari góor a jigéen ñaari góor yi den mujjee woon a gaañu démba bu ñu leen yóbboo si lopitaan bi. because of um, injury yu gaay am si fetel bi waaye ku jigéen ki moom fu mu nekk nii mu ngi si lopitaan bi in critical condition so léegi dañ bëggoon a ñëw pour waxtaan ñu dëkk boor nii ñoo xam ne fekkee neen ko woon démba wala ñoo xam ne boor yi leen dëkk pour ñu wax ñu seen xalaat si incident bu happen démba fii nii. naa nga tudd. man maa ngi tudd Ibrahima. Ibrahima naka. Ibrahima Maane. ah ok so fii nii um, si Sukuta Sukuta Jabang highway bi nii fii nga am garage démba li fi xewoon démba fekkal fii la legi dama bëggoon pour nga wax ma sa xalaat rek démba incident bi naka nga ko dundé won ak yoy nonu kam sa xalaat da um ba ma wax ko ci rek because sama naa ne loolu laa gën a dégg daal nga su ma ne dama wasi si olof mu na dem walu am na waruma ko waaw incident bi euh fi la ma fekkon kess ni a entramin jandole aketa nyalale because ndala gara suubi jano don teka understand so tel be siri na moto lekang be triple batu so mbi jeto rek ngaje bu crosta police officer sol be siri ndami PI officer sol be siri ndami afta e nga keso moy so briga bu ngami kilindo boyta wala so fulol ni wala ya ros wala ya try pour ka ros ka bandi ya mano cross after do fanan tara boy je ma fa so saba jam fanan boy da after jele do den na drive afta kilindo bi jando na drive wala afta wa sika የዶሮ ሲንዴ ሆስፒታል ወሮ yeah i am shocked like because for the first time in my life since i know myself you understand ngaje like sylvia no the police officer and kesola me along you know minima uh, experience and then gambia na gambia long is a peaceful country you understand so now that i you know, stayed down me along one service officer soul ikol bu keso la dal so ti yamiran tel civilian de la live betal la nyaadi so ah wala nyindi ko like na tanko bunda da mul dal priya try yalla ni gëna prepare because ni be mul bula la gat poso to ma ñana ki bula mi yalla ko e ji wo nyama trasiri e be le la mu yalla ko sembe kantano isi fanam fo protect no nyami because ko be nyami mo ma long abita laban na nyami so ntem wala soto pour ka no dal ya ala baraka ba ak na haga tuda mang fi babukar si cela tuda okay babukar so yo si garage bi fi nga neka so legui dañ just bëggoon a xam sa halat si demba nah li bu mu don xew fi la la feka ak incident bi naka la xappu ak na ko dundé waaw man ci garage bi fii laa nekk ñun fii lañ dee taxaw si Johnson bi di Hard Town Trip so incident bi bu moo xapun démba fii la ma fekka so time boobu ñun ñu ngi toog suñ moto yi ñu ngi Hard Trip Town Trip so léegi yow bi nga tax di Hard Trip naka la incident bi happen because yéen incident bi mu ngi happen on the other side of tali bi te yow yaa ngi si side bi nii so yow meaning ne bu incident bi doon happen gis nga naka la happen even su nekkee gisuloo sa naka la happen dégg nga fetel yi ak yooyu noonu so pour nga leeralal ñu tuuti rek naka la xewee. waaw soo ñun dañ toog suñ ah, kaw moto yi ñu ngi toog si kanam moto yi soo ñu ngi waxtaan soo ñun ak gaay moom suri wante wuñ police officer yi fuñ dee toog ak ñun probably mutul sa ten meter understand ñun dañ toog ñu ngi waxtaan ñu dégg bal mu dóor ñun buñ déggee mu dóor sax dañ fa ne comme pédar moo dóor sax waaye after ñu xool ñu gis am na maan bu fa taaw so mu ngi téye pistol understand so sut na benn para officer bi understand ba kooku mu ngi collapse ñu ne waaw lii dafa mel ni fetal la de understand after mu start mu ngi daw so nu moo demee yeneen ñaari officer yi ñu ngi koo topp understand nga so after mu jamaat beneen sista bi ah ñu ne waaw li moom fetal la de mu ngee daw mu ngee jam yeneen ñaari officer last officer bu mu mujjee jam sa fële la ko jamee mu ngi ko jam si other side tali bi understand waaye ñun ñu ngee yuuxu so mu ngi amee fetal doo ko mun a roos understand waaye ñu ngee yuuxu saacoo saacoo pour nit yi génna waaye mu ngi amee fetal di fetal di daw doo ko mun a roos Orange Sanga si nii la affaire yi demee même ñu ngi koo ñu ngi koo xool ba si Johnson ba mu laaxa si Johnson bi gisuñ mu egg si moto gisuñ waaye mu ngee daw ak tànka so nii la siin bi xapu ne. so yéen bi fi nekkoon moom kenn kese la amul keneen ku mu non non probable nag waa euh, moom kenn kese lañ gis nag non gisuñ keneen kum àndaat nag moom kese moom kenn. so ñu ngi gis internet bi ne ñu ne dafa soloon xaftaan mun nga ñoo leeralal lool na xaftaan la soloon wala normal mbuba la sol nii rek. waaw tricota xaftaan yi la sol tricota xaftaan yi la nekkul nit ku gudda tamit nag dafa xala gaata waaw tricota xaftaan yi la sol nag. yow booy wala mag. ah non definitely nag du ma mun a xam young boy wala magla la because jegewuñ ko distance yooyu noonu ah just ah, lu ma am pour wa government bi mooy sécurité bi dafa dafa dafa po sécurité bi moom dafa des because could imagine kii bu mu dóoree gars yi fii nii bali ah? daanu so balaa moo move bay war a si Johnson bi war naa am sécurité foofu noonu understand because time boobu guddiwut some minute after nine understand traffic police yi sax ñu ngi fi wàccaanguñ understand so kooku war a def lu ñaaw li escape noonu noonu noonu dafa dafa yomba sécurité bi dafa des trop trop trop definitely kunun kabri ngaje kom kunun ah, sin dole hapunta jang me yalon ko ye polisol ah, bung ning kesola so uh, ah, mol nata ko comme ite sinu nying ay tara janne ebe ne sutala ebe min fola ah ndo ka nga men sura ka fo sino nying ka ba nyala no akaba keta mo man sura membe ye min folo bu mo man sura min ba samba so la samba loptano to nim boy nim fula la samba loptano to so nga samba loptano to ndol nga ngi drop je after dammuruntana you know ete enyin de nyaadi le haruna ha adiyamo siare gambe de sa en kolkata ñamen adiyamo siya batale no ite mini ye gay bung ite ya jele foy ma non kabi a bung ndanga jela bore kan bar mala fes jena mala fes non non nga jela bore kan bar adon si ala fes no so kabira be bore kan mo mam bulano ma no mo fengenak nano sa ibe mune fola ibe ibe mune sotale ibe mune fola si chori sila kuwa ah ndawe man shodola hakil tuwala rek si chori be dawda sa hakil tuwala ni mo bine kan yalo iba iba kala nyama ah hakil tuwa damma ntangol shotom dolko ani maybe ani police ol uh, min min nyum dal a uh, ye problem non sotale dolko i man kacha fan ite ye mi non non nte wo oh, kay nte fola fo la nuwo to kaatu maa maa kalamuta maa lo miŋ dunteetema ndete feŋ fo la nuwo to yeah. ite bi n'a tara i be diyaamu la gofmeno la i be mun ne la gaayi ah gofmen no kay i ñanta maakoro kela service man la karo la baa kel fam service man saba dula kiliŋ wo man sef anum kidi kiliŋ na be i bee bulu wo dum man sef i ñanti maakoy la baa ke fam bake amanka domandinta sa atol min be jamma fango alman sila o oh, because kabri nying hapunta dol bije ko man sino kuno so atol still al nata do ko wala oh wala ndolla na balu be janne so na do ko wala na do ko wala so silo ka o Ba fo silo lo kido la kuma fo silo ka. so ndanga wala so tombe ko ala baraka baraka haruna ya. de Musa long. Musa uh, ah, Abidjan. Abidjan ah, bokule. Abidjan ah, uh, sukuta traffic light nga jele ko uh, accident dole sotodon jankunung uh, ye mo sababun uh, kidola anung atol be jangara soto uh, me ya lon ko is just opposite where fenko hapunta dame ebe minister lebe e min fola ya yeah, nyun ko ga mo mo boka fonon de because nde ngaru mo sob jama mo wala bari mo mo ka fanyame amang kunya because nda kita ndi nyala ya san so ndi kay mo buka phone nda kita nyala so akita nyadi ne ya? ah ndol be sir nyala ndol mu taxi driver ndol ka ndol ka sir ndol be sir traffic la jana suga sura traffic la ja so ndol sir wolto so afta nyabe bo ni na nda ko no so ay ay kido fay pam pam so ba ndem first time nga mera kom pedaro lon vang because kam nga jiwe nga nyaabo ko da because nga mera pedaro lon fo afta nyaaje paral be boy boy kam boy after so nga jele kewni mbor da boy bag vang because comme tenga men jaka ke woni ngai aikido experience le yeah aikido experience baka because na tara komi mo jama ka fala man kenya bari ni ngai aikido experience le yeah ne so fono yeah san ka bring ay wol wol bung atoli mun non ndol ndol alors kabira wol bung doron ndol lo nga jibe fa ndafa ndebelo ndin tema man tel mi ta fonsi bonyaaje so par so par be boy kan afari biko ko alnga mo dalamu alamu so ndol burta no ma bara ngadere awa fa kan sura ko ko nimo en yom mambe fa ata ay kilo fa santo pam ata mo be stop ta abora ko denga kilo fa nyas ba kilo fa ga be bora ka so wala mo mamuta tan ba muta no lal gos ndol ndol be mo lokon ma lon ko dol la bayandi akabara kilo fa rek ndol be stop ta ndol be lota mo man mo ma hanya ka mo ko Yeah. So kabrin ying hapunta kunung bi al wulta al nata doku wala. Ah uh, al man sila pul kananang because a hapunta al nya. No ndo ka develop kunung manku kunung ga kunung manku ma. Allah kunung sila ba ga because de ne man siva generally moy gambia ko to ko kirante fa wonya la ndebe lori ne boy nya bala nya bala life. So nda inja halle. First time de first time de bara kom full skido lon fang ko man ko tuna because ngajele kabra bo nyumbung mayro je bo bala man bi yara fa adunta fe kono. so ndol nga mera kom kom nga kom feki dolon fo nga ja borda na nga tara fo ndola so na bo ni mbom jang haruna wole ase kala mo do kon dolle ase kala mo la mo do kon asamal asamal tawna kon so e mo ne je si chori la kola ni ah sista ni jalo ni mo mo men di kom ndanga men cross la ko ni mo last bad lo ni mo di ni wala di so ma ni ko experience ba ya ni si fa na tara ko ma ni reketa isa ko mi za fo no ko mi fam fenge bar ni ni manke so moolu b'a fɔ ka parliamentary na baro manko woti ñinkita nga men anatara anatara kita mo a bi abe men kela abo kelal so ñi mu dini wala di man ñu kostu an faran kidi kilne faran be bulu mo saba so kidi kilne be bulu so fi mu kela ñi nar nga me aru te ko ngay sa kido fa ite ite fende ken wala so mira comme police ol e ñanta ka kidol di gaay la fanam because comme ya fa ñamen killing ate be safno no ni ko sista be nyamen kay gambia ni taka ma ke ro fonke ba because ni ni yo mata ba xele ba ni fondin ke dindi meron bo yo fela life la tente masa kunda yalo ni taka mengi ni taka trailer bo yo mol yanga yep sa ni sito yit kende ka boy ni sifa na tara be ke ka bo jama bi boy abi abi abi mo mata la ba xele bo ngo kan yeah baraka kon ah, baraka ya okay okay man maa ngi tudda Penda Suare Salaaji Forest maa ngi dëkk Salaaji Forest soona nañ torop fii moom lu nekk la ñoo gis fii waaw fii ti li xew nii xew na waaye balaa lii am na yeneen yu gën a garaaw yi parce que barki Dembo Njaay ñun suñu xale yi léegi bu ñoo jaay si fii sax dañoo am pour fekkee kenn nekku si kër bi dañoo indiwaale suñu xale yi fii fu ñoo parce que óolootuñ leen a bàyyi si kër gi fii léegi fi mu nekk nii Gambie moom understand ko depuis daaw ak ren affaire bi dafa garaaw torop li day xew fii dafa bari. fii léegi da jaay ba wàcca lu ndaw la ngaa am noonu du faj dara yaa nga war a daw dem toppatoo sa njaboot yi nit toppala bu ko ko sa loxo. génne la paaka wala mu téye la ngànnaay boo xamante ne daal mun na laa rey barki dee am na ku dee jaay fële ndeewoo kooku dafa jaay ba heure mu wàcca dem marché nduga ba pare enu ndugam bi ak lifinam bi di dem ñibi si forest bi ñaari booy génn tooj butéel keneen ki fii la ko jam mu jël kalpi baagam bi daw dugg si biir forest bi sonn nañ torop démba suma benn wuji peccar ko tamit dafa moom tamit mu ngi toog fii di jaay mu yónni xale bu jigéenam bi si bitig bi kooku dem si bitig bi di ñibi ñaari booy génn si biir forest bi toppa di ko xëcca pëgg ko dugal si biir forest bi mu yuuxu afta bu mu yuuxoo ñi nekk si koñ bi foofu ay maçon ñoo ñu daw a ñëw booy daw dugg si biir forage forage bi daal sonn nañ léegi fii trafic laay tamit seefatul fii problème bu fi xew suñu rëccee rek forage bi la ñoo dugg suñ forage bi léegi ñu nelawatuñ guddi nelawatuñ bëccëg sonn nañ torop li ko dooree trafic fii jëm ba jaabang jëm noonu bandi yëpp fii lañ ëppee su may waxal yàlla fii lañ ëppee ñemeetu laa dox bëccëg ñemeetu laa dox guddi sonna nañ torop waaw lii nag moom yal na yàlla feeñal kii def lii yal na ko yàlla feeñal ci barke Seydina Muhammad léegi yow lii bu mu doon bu mu waaw waaye bi nga ñëwee si suba ñu wax la ko naka nga ko dundee ñu wax ko fiil naa ko torop parce que ñii moom xam naa leen bu baax ñun dañuy jënd si ñun ndéewu every day dañuy jënd si ñun ndéewu amuñ benn problème amuñoo ñoom benn problème depuis ñu gis leen fii dañ kontaan ñu ne suñ xel parce que para yi léegi ñu ngi ñew suñ tok suñ wet yeneen non sees yi dee xew xañ na léegi dina wàññeeku suñ xel dal li mom naxari nañu torop naxari nañu torop waaw ma nge jégalu nak di massaw tamit sen kelifa yi yëpp ma ngi leen di masawu yal na leen yalla xare ajaan waye metti na metti na ñun yëpp suñ naxar la Gambie sen naxar naxari Gambie la ñu may Diouf ok Souleymane Diouf um, buñ fi ñëwee wax nañu ne yow yaa nekk chef de garage bi si garage bi fii nii so léegi um, chef de garage bi à ah, chef de garage bi démba xaw ma na li fi xewoon démba ndax fekkee nga ko even su nekkee fekkeewuloo ko sax bi nga ñëwee driver di wax neen la lu fi lu fi xew léegi yow à chef de garage bi lii mu ngi xew opposite yow garage boo xam ne yaa nekk jiit bi fii nii lan moo nekk sa xalaat si li xew fii nii. ok waaw suma booy trop waaw maa ngi gërëm gars yi sin bi fekkut ma fii nii of the sin fekkut ma fii waaw comme ni ñu ko mën a waxee daal. but after after sëñ bi laa mujjee ñëw fekk si problème bi waa booy bi bu muy daw fekk yow mag daa beneen booy bi suma beneen taxi driver moo ko yóbbu lopitaan si diggante bi so balaa ñuy ekkati beneen booy bi pour yóbbu ko si lopitaan bi tamit boo man boobu laa fekkee man temps boobu laa ñëw after suma booy ñu ma ko doon explainal waaw. so léegi driver yi um, police yi dugalul leen benn moto different moto leen different moto moo leen yóbbu si lopitaan bi so léegi ñu ngi gis si internet bi ne gars yi dañ leen yóbbu um, Sarek fii nii Sukuta Health Center ñu ne pour ñu yóbbu dem Dembaar so léegi yéen driver yi fii ñi leen yóbbu Sukuta ñoo continuer ak ñoom ba Dembaar. no actually no ñu yóbbu gars yi euh, Memban clinic I was not aware of that Oh, I was not aware but noo suma boy bi after um immediately si bi bu mu happen moo mujjee yóbbu beneen para bi si lopitaan bi waaw so xaw ma after on ndax Sukuta lañu em ndax Memban clinic waaw loolu si ma waxee daal na jum si loolu. léegi yow mun nga ñoo wax tuuti si sa xalaat ak um, lan nga nekk di ñaan government bi pour ñu def in terms of security bi nekk si dëkk bi. Oh, government bi de moom wax dëgg yàlla maa ngi ñaan gars Wow, because officers at this moment, they are not 100% armed. Yo, as a civilian, even so good as a civilian, sir. Yo, right now, you know, they're not the sun neck, do to the 100%. am na ñoo xam ne seen néeg si seen boppi lal bi ay jaasi lañ fa ame ay et loolu yëpp pour leen la du dee mën a neloo hundred percent so nguur bi daal non dañ war a def effort si loolu non sécurité bi mën a am doole patrol bi all over the country waaw loolu maa ngi ñaan gars si loolu tamit waaw. ok jërëjëf. waaw jërëjëf. war jàppale si sécurité man Ousseynatou laa tudd te sant Diallo maa ngi ñaan nguur gi nañu dimbale si sécurité si Johnson bi man fii laa day jaayee mooy trafic la dama day jaay fii Ndewo waaye février 25 man tam bandi dañ ma attaquoon suma kër jël suma téléphone ak suma 50 000 dem xamewuma ko parce que dafa max. xamee ma kanam bi waaye dafa ma dafa fekkoon maa ngi tooga si fajar man fajar laa dee tooga dama dee jaay ndéewoo mu xaar ba ma dugg si biir néeg bi mu toppam su ma bunti jëkkër bi la njëkk a mu ñëw dafa àndoon na paaka sax paaka bi dafa daanu si gannaaw fence bi bu mu doon ñaay la paka bi daanu si gannaaw fence bi si la dugg dafa dugg rek jël sànke bi ko suma boppam mun maa xoj ba mu xujee ma xam ne su ma xëcc wantee moom daf maa rey ma bàyyee ko mobile bi ak xaalis bi yëpp xaalis boobu naan moomuma ko xaalis si teg la susu la waaw maa ngi ñaan trafic laaj fi ne dafa bari bari ñu fi nekk fii du kenn nit moo fa bandi yëpp fii la ñoo tase balaa nga xam loolu nga ñëw fi bëccëg bëccëg fi la mooy gën a garaaw police para ñu fi rey démande moom ñun ñëpp naxaru nañ ci because dañ ñëw si suba ñu wax ñu loolu mënuñoo jaay sax because eh, police ñoo para yi moom dañ kontaan si ñoom because ñëwee si Johnson bi ñun dañ kontaan because am nañ si sécurité waaye dañ ñëw si suba teel tey ñu ne dañ yi dañ gaañoo waaw ñun leen di ñaanal yàlla ñu leen ko yàlla xaaree aljana waaw yal na suuf sedd si kawam seen mbokk yëpp ñu leen di ñaan yàlla man lool lay ñaan government bi ñu dimbalé si sécurité bu baax sax si Johnson dañ dañ nga lool parce que trafic la dafa garab assalamu alaykum nuy na naa euh man ma ci si alaykum bi ma ngi tuddu mohammed Jawara man sarahulé la wa dëgg-dëgg alhamdullilah limay wax ci Gambien dañu wara tray try ñu jóg. ñu defar suñu réew soko ko government ñun government bi yéen a jiitu ñun te yéen ni ngeen jiitu ñun da ngeen war a dimbale ñun tamit ñun civiliens yi police yi ñëpp a war a jàppalante si réew mi réew mun a dem kanam nekkul government bi dañ ko bàyyi ngir loxoy police yi kese ak pare yi ak militaire yi kese. civiliens sax dañu war a dimbale comme façon bi xappun demb si guddi nii bu moo xappunee civiliens yi soo leen mënta téye ko instant Dengan wara trako ngen topuko, even sen digante mu nekk 10 meter nga trako so nekk di topo ko nonu mun nga call sahar nga na call ma government ñun ñoo area bi ki am problem bi fi la xàppu noy wa mu ngi di dem area bi ngen topante ngen mun muna, xam ni kooku naka la mun a waaye démb si guddi gis koku non lol da ma nakare man kay deug deug civilisation dañu war a démb guddi par ñaar pare de dañu dañuy pour Gambia dañu dund Gambia dañu dee Gambia ah parce que fu mu doon ñaari parey seen natal yi ñu ngi dugg social media waaye lan moo tax ne kii rey parey kooku natalam mënut a dugg social media. waaw dañu try civilien yi dañu war a try ñu dimbalante ñu génne ñu dimbalante suñu gisee kooku nag fu mu nekk ñu try soo mënut a génne sa bopp social media ah teel nga kool koo xamante ne mu ngi social media nga génne si ron nga kool ko nga ne ko ah gis naa ko place nangam de dimbaleen nañ dimbalante fii Gambia la ñu ñëpp bon citizen la if you are not a bon citizen you have to help your country you have help where place you are living fu nga nekk foofu mooy sa place waaw ngeen jégal ma si kàddu bi su rafetee ci yàlla la jóge lu bon rek xam nga doomi aadama matut ngeen jégal ma si kàddu yi rek asalaamaaleykum wa doomi Gambia nañ dimbalante nañ dimbale government government dimbale civil yaay si eh, again eh, CCTV dañu war a am Gambia fii CCTV Gambia try leen ngeen am CCTV soo leen amul CCTV doo leen mus a dem kanam de CCTV dafa war a am Gambia fu nekk la war a am parce que jamono bi dafa sensé jamono bi dafa sensé nu ñuy nu ñuy nu ñuy demee every day dañu war a yeew ñu understand asalaamaaleykum Um, comme ni ma leen ko waxee woon si doorin bi rek ñu ngi fii nii um, Sukuta traffic lights pour ñu wax ak nit ñi dëkk boor bi nii pour ñu wax ñu seen xalaat ba pare ñi nga xam ne fekkee neen li xew démba pour ñu wax ñu tuuti si um, lu xew fii nii démba comme ni ngeen ko déggee rek gars yi wax nañ ñu ne bi lii doon xew driver yi nekkoon fii nii am fi garage gars ñu ne bi lii doon xew ñoom dañ fogoon ne pétard la parce que loo xam ne la bu suñ koo dunda si dëkk bi so mu ngi nekkoon loo xam ne mu ngi eesoon si so gars yi pour ñoom foog gëmul mënul mënul woon a gëm sa ne loolu loolu um, lifin la woon uh, fetel la woon so gars yi explain nañu ñu ne tamit ne um, PIU officers yi fi nekkoon da nekk PIU officers yoo xam ne den baax torop si ñoom parce que foofu yégee léegi fii la gars yi dee jëndee ndéewo dañ dee waxtaan ak ñoom ak yooyu noonu wax leen ñu ne tamit am na ñu nekk um, yenn driver yi nekk si garage bi ñoo xam ne ñoom ñoo mujjee yóbbu PIO officer si si um, police station si uh, police station bi den from si police station bi gars yi dem si um, health center bi so ba pare tamit uh, jigéen ñi nga xam ne fii leen nekk di jaayee ndeewoo ñoom tamit wax nañ ñu seen xalaat si li xew démba so ñoom tamit ñu ngi ñu ngi urge government bi pour ñu try ñu boost up am um, security bi nekk si dëkk bi parce que ñoom mi dëkk boor bii nii um, ñu ngi feel na dee no longer uh, um, uh, secure si dëkk bi because of ñaawteef yi dee am boor yi nii so ñu ne ñu ngi urge government bi pour ñu try ñu def dara pour increase security bi nekk si dëkk bi so man la Aida Njie from the Voice Out Digital maa fi ñëwoon tey ak Tida Badji ak Hazali pour ñu ñëw uh, We nit yi nekk fii nii ah, mun ngeen ñoo toppa si sun social media outlets yi on YouTube Facebook Instagram ak TikTok alongside um, Twitter thank you